أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa marhaban bikum ma al anbiya alayhimu salaatu wassalaam mbokk yi ñoo ngi tolloon doon def qisasul anbiya ci jàkka ja waaye nu gis ne nu indi ko fii ci daara ji moom mooy gën a am pacte mooy gën a am jeexital pour ngeen jëriñu ci moo tax ñu toxale ko jàkka ja indi ko fii waaye dars yi sori woon nañ ci torop parce que ñoo ngi tolloon ci diggante Daawud ak Suleymaan tey ci kàttanu yàlla noo ngi jël qadiyatun uxra beneen sujet beneen tomb boo xam ne ba tey mu ngi ci yonent yàlla daawud xam ngeen ne daawud alayhi salaam benn bis toogoon na ci mihraabam mihraab mooy jàkka suñ ko tabaxee ba pare am na fa benn néeg bu ñuy woowee néegu ilimaan wala rooron boobu ilimaan di taxaw di jiite julli loolu mooy mihrab benn bis daawuda toog na fa di jaamu yàlla comme ni mu ko daan tàmm tàmmee di defee yataabad wa yusalli muy jaamu yàlla di julli ci mbetteel mu jékki-jékki rek ñaari nit na fa saraax daal di dugg ci mbetteel te loolu musul am ndax mihraabu daawud kenn daaw fa yegg si kudul moom nit ñi ci jàkka yi am na foo xam ne duñ fa yegg am na foo xam ne imaam bi rek moo fay nekk moo fa ñemee yegg daawuda ci mihraabam moom kenn moo daan nekk foofu kenn du fa am accès waaye tey dafa jékki-jékki toog fa rek ci mbetteel rek mu jékki-jékki rek gis ñaari nit yu ne dareet ci kanamam bi loolu amee mu daal di tiit te jamono jooju loolu di am buntu baa ngi tëju waaye xamul ñaar ñooñu fu ñu jaar ba ne saraax ci mihraab bi fekk ko ci biir ñooñu bi ñu duggee mu xool leen ñooñu xool ko ñooñu sentir ne ñooñu am yëg-yëg ne daawuda dafa tiit xaalu ñu ne ko laa taxaf xaalu laa taxaf ñu ne ko daawuda bul tiit xasmaani baga baaduna ala baad ñun ñaar lañ ñu xuloo ñu am problème kenn ci ñun lenn ci ñun dañoo bew ci seeni moroom saa yoo gisee saa yoo gisee xuloo dafa am ku tooñ moroomam soo tooñul kenn rek xuloo du am xuloo boo gis rek dafa am ku tooñ moroomam keneen ki taxaw bëgg a fayu xuloo am coow li jóg kàddu yi yëkkatiku xuloo boo gis ñaata nit ñoo koy def walla benn du xuloo ku muy xulool benn du xuloo di kan lay xulool olof yi nee nañ benn lam du yëngatu benn lam ci sa loxo du yëngatu mukk soo déggee lam yi di yëngatu rek dañoo bëri waaye benn lam kese soo ko defee ci sa loxo du yëngatu ñu ne ko ñun dañoo xuloo ñaari gaa yooyu ne ko ñun dañoo xuloo lenn ci ñun dañoo bew ci seeni moroom léegi nag wa ji naa li tuqoodi amaamak ñëw nañ ngir nga àtte li nekk sa kanam ñun ñaar ñi nga àtte ñu waaye liñ lay ñaan rek boo ñuy àtte ñun ñaar ñii fahkum baynana bil haqq na nga ñu àtte sunu diggante ci dëgg na nga ñu àtte ci dëgg de ndax kat yow daawud yàlla la wàcce woon ci suuf ne la inni inna jaalnaaka fil ard fahkum bayna naas bil haqq yow daawuda yàlla la wàcce woon ci kaw suuf daf la yonent ne la na nga àtte nit ñi ci dëgg kon ñun ñaar ñi am nañ problème na nga ñu àtte ci dëgg bul faral kenn wahdina ila sawaa'i siraat nang ñu jubal ci yoon bu jub bi bul faral kenn ñun ñaar dañoo am problème ñëw nañ ci yow yow yaay àttekat bi yow la fi yàlla teg kon nag àtte ñu te boo ñuy àtte bul faral kenn teg ñu ci dëgg qaala ahdu rajulayni kenn ki daan ne laa taxaf yaa saydi yow kilifa gi bul ragal bayni wa bayna haza rajuli xusuuma man ak sama waa ji góor gi maag waa ji dañoo am problème waqad ji'naaka li taxkuma baynana bil xaq dañoo ñëw nag léegi pour nga àtte ñu nga teg ñu ci dëgg aka neexoon àttekat yi xam ne suñuy àtte ci dëgg rek lañu war a àtte waaye xam ngeen lu doy waar yonent bi nee na àttekat yi ñett lañ àttekat yi ñaata lañ ñett àttekat yi ñett lañ yonent bi nee na ñaar ñi safara lañ jëm kenn ki moom àjjanaam wóor a gudde waaw àttekat bu njëkk bi dem safara mooy ki nga xam ne xamul nu mu demee xamul dëgg gi laajtewul mu ñëw rek àtte kooku safara la jëm beneen àttekat bi nga xam ne safara la jëm moom xam na dëgg gi waaye da cee teg tànkam safara la jëm keneen ki nga xam ne mu ngi ci danger nag mooy ki xam dëgg bi ba pare àtte te li mu dégg rek la àtte moo tax mu jàpp ne kii moo yor dëgg mu àtte ci loolu kon gis ngeen àtte moo gën a garaaw ci kaw suuf ñaar nit xuloo rek nga ñëw rek nga ni kii diw yow yaa tooñ wala diw nangam ak nangam ah loolu moo gën a wóore di ci àdduna loolu ma fi gën doy waar moo tax liggéeyu àtte liggéeyu àtte ku koy def rek war ngaa xam li nga dugg lan la sa safara moo taxaw te tey gis ngeen nit ñi niñ ko yombalee tey àttekat di seen yoon nekk ci boo demee ci tribunaux yi wala nga dem police wala nga dem wala nga dem da ngay gis ña fa nekk faale wuñ sax la ñuy def te xamuñu ne ëllëg yowmal qiyaamati yàlla def leen di woo àttewaat la ñu àtte woon àtte yàllaa ko moom kenn waru ci dugg inil hukmu illa lillah yàlla nee na àtte maa ko moom te man dong man yàlla maa war a àtte alaysa allahu bi ahkamil hakimin te sooy àtte fahkum fahkum bil haq sooy àtte nit ñi da nga leen war a àtte ci dëgg kon daawudaa ngi noonu loolu la ko waa ji wax ne ko ñëw nañ ci yow pour nga àtte ñu ci dëgg léegi nag ñoom ñaata lañ woon ñaar kenn ki nag léegi moom la daawud a laaj saala daawud alayhi salaam mal qadiya daawuda ne mbir mi lan la bi daawuda waxee mbir mi lan la rek kenn ki daal di commencé wax ne inna hadha axi lahu tisun wa tisuuna najatan ولي نعجة واحد قال أكفلنيها وعزني في الخطاب من ماك سما واجي من دما يور بن بن نعجة مويلان ها نعجة ها naaja mooy lan mooy benn xar bu jigéen wala wala giléem gu jigéen man damaa yor sama benn béy bu jigéen sama waa ji moom am tisun wa tisun am juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent ñaataa ko dese moom téeméer benn moom mu bëgg a nangu jël sama bos jolli ko ci bosam bi mu waxee lool rek wala daawuda laaj daa daawuda daal di laaj keneen ki mu ne ko moo la tooñ ndax moom lan la àttee lan la dégg lim bi lim bi li waa ji am ak li ki am kii ñaata la am juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent kii ñaata la am benn kii bëgg a jël bosu kii yokk ko ci bosam fa qaala daawud alayhi salaam bi gayri an yasmaa raaya tarafi l axar daawuda daa di wax ba mu dégloo kenn ki dégluwul keneen ki laqad zalamaka bi suaali naajatika ila niaajihi moom de tooñ na la nan la la tooñee ci laaj bi mu laaj sa benn bi bëgg koo yokk ci bosam tooñ na la est-ce que àttekat noonu lay def bu ay nit amee problème ñoom ñaar ñi ñëw ci yow ñu ne la àtte ñu noo war a def soo laajee kii ba pare ba mu wax ba pare nga laaj kii moom tamit wax ba pare nga déglu ñoom ñaar seen wax yi nga peese ko nga càmbar ko bu ñuy wax da nga leen di déglu pour nga xam kan moo yor dëgg bi waaye léeg-léeg ni day tooñ ba pare ñëw commencé salaamaaleykum rek ñu ne yow yaa tooñ lu tax yaa tooñ parce que kii a ngi jooy wala kenn ñëw kii ne ko ku ngande kii ne ku sew ruuj rek ñu ne ku ngande ko yaa tooñ du noonu du noonu de wala kii ne ko góor rek kii ne ko jigéen rek xam nga jigéen moom dafa gaaw a jooy salaama rek ñu ne ko góor ki yaa tooñ du noonu il faut nga leen déglu bu ñu fàttee mbokk yusuf ya ba ñu defee seen toj toj ba ñu ñëwee ci seen bàyyi lu ñu doon def luñ doon jooy yàlla mu ne ci alxuraan ku may fàttalee aaya bi déedéet wajaawu abaahum yabkun dañoo ñëw ci ngoon nga da jooy est-ce que ñoo yor dëgg waaye kon jooy taxut a yor dëgg ndax ku nekk xam ne ne ñooñu bañ ñëwee seen jooy yooyu ay lan la woon tappale ay fen la woon ba pare ñu dem def seen musiba ba pare ñëw papa dëkk dañuy fen kon nag jooy taxut a yor dëgg moo tax àttekat yi bu ñuy àtte dañoo war a déglu bu baax ki ñuy àtte ñi ñuy àtte ñu bàyyi ñaar ñëpp wax rek bi mu waxee loolu ba pare rek mu ne diw moo tooñ yow muy kii moo la tooñ lu tax parce que daf laa laaj loo xam ne sa benn bi nga moom moom la la laaj mu daal di àtte kenn ki mu ne moo tooñ te dégluwul keneen ki xissa bi nekke nii la demee du nu ko gaa yi di waxee naan daawuda dafa amoon juróom ñeent fukki jabar ak juróom ñeent mu dugg ci wanagam di sangu euh, mu dugg ci biir néegam wala mu yéeg ci soorooru jàkka ji mu tiim benn wanag boo xam ne amul sàkket ci kaw mu gis benn jigéen di sangu jigéen ji rafet lool bi mu génnee mu ne waaw jigéen ji nag ñu ne ko jigéen ji de dafa am jëkkër mu ne koy jëkkëram ñu ne ko diw mu daal di koy jël yóbbu ko ci soldaar yi ñu rey ko pour mu takk ndaw si loolu loolu du dëgg xam ngeen ne ab yonent du def loolu loolu waxu waxu israiliyaat la loolu xam ngeen ne du wax ju jub ndeke wax ji lii la lii mooy dëgg gi ñoom ñaar bi ñu ko waxee loolu ba pare ba mu ne kenn ki yaa tooñ ci ay seconde rek ñooñu daal di disparaître daal di seey ci kanamam gisul leen ñu mel ni benn niir moo leen muur gisatu leen daawuda rek xam ne ñaar ñi duñu woon ay nit waaye ay malaaka lañ yàllaa leen yónni woon pour natt ko fa fuji a daawud bi ixtifaa i rajulayni min amaamihi daawuda daa di am mbetteel ñaar ñooñu nëbbu nañ ci kanamam xamul fu ñu jaar ixtafaa ar rajulaani kama law kaana saxaaba mu ngi mel ne niir moo leen muur wa adraka daawud anna rajulayni malakaani daawuda xam ne nekk ñii duñu woon ay nit ay malaaka lañ yàllaa leen yónni woon ñu ñëw yor jëmmu nit pour yàlla natt ko moom daawud xool li ko yàlla waxoon dinaa la wàccee ci suuf si pour nga àtte nit ñi ci dëgg ndax daawudaa ngi ci inni jaayilu ko fil ard xalifa dinaa la wàcce yow daawuda ma def la ci suuf nga nekk kuutlaay nga àtte waaye booy àtte na nga àtte nit ñi ci dëgg loolu laay ah mu ngoog loolu laa lay wax yow daawuda tey léegi nag yàlla wa yónni ba yónni ñaari malaaka yooyu malaaka yooyu di ko defal test ndax contrat bi mu signante woon ak yàlla moom daawuda mu ngi ci daawuda xam ne ñaar ñi ay malaaka lañ arsalahuma allahu ilayhi li yuallimaahu darsan ñaari malaaka yi nañ ñëw jàngal ko leçon falaa yaxkumu bayna almutaxaasimayni min annaas illa ida samia aqwalahum jamian pour lan dootul atte mukk lu dul balaa muy atte mu déglu ñaar ñi mu déglu leen déglu bu baax mu déglu leen fa rubama kaana saahibu tisa wa tisina naaja ma ahul xaq ndax amaana borom juróom-ñeen fukk ak juróom-ñeenti bi yi amaana moom moom moo dëgg kee benn la yor mais mun na bañ a nekk ci dëgg de kon dëgg du ko tuutile du ko néew doole du kuy jooy du du du déedéet dëgg yàllaa ko moom léeg-léeg xale nekk xale waaye yor dëgg léeg-léeg mag nekk ponkal fekk amul dëgg léeg-léeg nit am alal fekk yorul dëgg ku amul alal ki moo yor dëgg bi léeg-léeg nit am alal it yor dëgg bi léeg-léeg nit am xam-xam it fekk du yor dëgg léeg-léeg nga gis ku ñàkk xam-xam yor dëgg bi léeg-léeg nga gis jigéen yor dëgg fekk góor gaa ngi ni yorul dëgg gi léeg-léeg nga gis pap doom ji yor dëgg papa ji yorul dëgg day am ndax dëgg yàllaa ko moom moo tax su ay nit amee jafe-jafe lu ñu war a njëkk a def mooy ñu déglu leen ñoom ñaar pour ñu xool ñoom ñaar ñii ku tooñ kan moo nekkul ci dëgg waaye ñaar yi ñëw rek nga xool kenn ki dafa ponkal kenn ki daa sew rek nga ne ko ponkal ki yow mi daa tooñ lu tax damaa tooñ nga ne koy da ngaa ponkal kii daa sew déedéet du noonu de yow mi yaa tooñ lu tax parce que yow da ngaa am alal kii amul alal déedéet yow mi xale bi yaa tooñ lu tax ndax kii paa la déedéet dañuy déglu waaw dañuy déglu mbir mi suñ ko dégloo ba mu leer ñu doog a àtte ndeysaan foofu nag daawuda bi mu gisee ñooñu daal di réer mu xam ne ay malaaka lañ wa xarra daawuda raakian dafa taxawoon rek mu rukkoo mu jàpp ci óom yi bu mu jàppee ci óom yi rek mu sujjóot allahu akbar mu dellu ci yàlla tabaraka wa taala rek mu sujjóot foofu muy jooy wastaxfara rabbahu muy jégglu yàlla ay yàlla baal ma tooñ naa la yàlla baal ma tooñ naa la parce que def naa loo ma tere woon mooy atte naa te laajuma wax naa kenn ki yaa tooñ te laaj te laajuma ko nee nañ daawuda foofu mu së foofu mu rukkoo foofu mu sujjóot di jooy dafa jooy di jooy di jooy di jooy ba foofu sax ñax ndax yàlla na ko baal foofu mu sujjóot di jooy daa jooy ba mu sax ay ñax ndax ndox mi ndox moomu di daanu ci suuf si di génn ci bët yi di tuuru ci suuf si foofu mu sujjóot foofu dafa sax ñax ndax jooy yu bari pour na ko yàlla baal lan la def dafa àtte ñaar ñii te laaju leen te ñaar ñooñu duñu woon ay nit ay malaaka lañ yàllaa ko yóon yàllaa leen yónni woon pour ñu natt ko ñoom ñaar wa zanna daawud anna fattannaahu fastaghfara rabbahu wa xarra raaki'an wa anaab daawuda yëg ne man yàlla teg naa ko nattu ndax testé naa ko ma jàpp ko bi mu yëgee ne jàpp naa ko lu mu def moom daawud wastaghfara rabbahu mu commencé jégglu borom moo ne nit boo tooñ nit boo tooñ defee bakkaar da ngay jégglu yàlla nit boo tuub boo defee bakkaar da ngay tuub nga jégglu su fekkee da nga kaa wax nga tuub astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi nga tuub dellu ci yàlla yàlla baal la astaghfirullah wa atubu ilayhi maa ngi jéggulu yàlla maa ngi tuub dem ci moom soo waxee dara wala nga def lu bon noonu la ñuy tuubee astaghfirullah wa atubu ilayhi noonu la ñuy tuubee astaghfirullah wa atubu ilayhi daaw da sujjóot di di di jéggulu yàlla di dellu ci boroom di ko màggal ba suñu boroom ne wa inna lahu indana la zulfa wa xusna maab daawuda sax na foofu di jégglu boroomam xatta xafara lahu llahu lahu wa asna alayhi ba yàlla daa di koy jéggal daa di koy tagg yàlla mu ne fa xafarnaa lahu zalika wa inna lahu indana la zulfa wa xusna maab daawuda jéggal naa ko fa xafarnaa la man yàlla baal naa ko allahu akbar daawuda texe na allahu akbar daawuda texe na lu tax texe na lu tax texe na parce que yàlla baal na ko yàlla ku mu baal rek texe nga allahu akbar yàlla na nu yàlla baal ee waaye sunu borom baal nu ee waaye baal nu yàlla na nu yàlla baal mbokk yi daawuda texe na parce que buur bu toll na yàlla moo ne baal naa ko baal naa ko waaye wa inna lahu indana la zulfa moom ku am wàccuwaay ca yàlla la moom daawud waaw daawud ku am place bu kawe la ca yàlla mbokk yi incha allah bismillah ñu yem fii ba àllarba bi di ñëwaat buñ jullee timis ba pare incha allah ñu yàgg gàggali darse bi assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ku am loo ciy laaj insha